Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel jamono ñu nekk seen télévision Touba Argentine TV euh, comme ni leen koy déglee jamono ñu nekk waxtu wu ne saa yu nekk xam ne jamono seen mbégte rek mooy waral sunu farlu Euh, mu mel ni jamono ji ne tamit dañoo def benn grand cérémonie officielle euh, mboolem kàngam yi nga xam ne ñoo ngànk daayira bii di Jazbul Xulub fii ci Touba Argentine de La Plata ñi nga xam ne ñoo yor ñi wàllum organisation yi wàllum euh, kuréel gi ku ci nekk rek fas yéene na janoo yow tey jii laaj la noo dundee bis bi ak yan situation nga dund ci bis bi mu mel ni jamono ji ne dañoo toog ak sunu mbokkum taalibe moo xam ne ci liggéey bi la bokk xanaa njëkk rek dañ koy bàyyi mu nuyoo salaamaaleykum jori ñu ngi lay nuyu waaw aleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaar te di leen jaajëfal waaw màggal gi moom ni ko sëriñ bi digle woon def nañu ko ndigal li ñu sëriñ bi joxoon pour ñu màggale ko ni mu ñu ko digle woon def nañ ko dafa waxoon ne rumtu sukoorullahi jalaal jalaali min talsasin bi sikri wal alaali maa ngi sant yàlla ci sikr mooy tudd yàlla buñ ko waxee mooy salaatu ala bi jàng alquran def ay bernde waxtaan ci sëñ bi wala xalaal nag mooy lépp lu nga xamante si lu ñuy jëfandikoo la te lépp lu dagan rek ni mu ni mu ko waxee woon noonu doxale nañ ko màggal bi macha allah sëñ Matar mel nii da ngaa lu am solo muy ay bayt yoo xam ni baytu Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul la euh, ñu xam ni sëñ Matar moom dafa féete ci li nga sa euh, maa ngi jégalu si si tur wi euh, sëñ Matar ba tey benn la sëñ Matar sëñ maxtaar Mbuub ñu bëggoon a xam tey ji organisation donte yombul ñu denkal organisation nga war a lépp loo xam ne rek day taaral bis bi ñu teg ko loxo ñu bëgg a xam yow noo dundee loolu ci daayira bi waaw maanaam xam nga wàllu organisation moom ñi ko séq rek bu ñu déggoo rek day daal di yomb daal ndax ku ne xam na ne depuis daanaka bi we bi màggal gi desee un mois ba léegi ñi ngi ci wàllu organisation bi xalaat rek lan mooy taaral bis bi ndax organisation moom doon lu dul li nga xamante si moom la ñu war a def ci bis bi ak li ñu war a jëfandikoo ci bis bi loolu moom mooy organisation li ñu war a jënd li war a jëfandikoo ak wàllu wàllu décoration pour salle bi jë bërëb beeg wàllu yi nga xam ne dañ ko war a def location pour indi ko pour bis yooyu yëpp loolu mooy organisation moom bu ndax liggéeyal Sëñ waa moom mm, yomb na jafe na waaye dafa mel na que sëñ bi moo ci teg loxoom dina metti lool ndax bu desee weer presque da ngay bàyyi sa liggéey di dem ci lépp lu nga xamante si rek day tax bis bi mën a taar bis bi taaru nga di ko def waaye euh, sëriñ bi tax nga koy def moom am na fay. macha allah sëñ Matar ñu xel buñ duggee si biir mbokki taalibe yëpp ñoo tegandoo seen bët. gis na mbir mi jaar na yoon lool macha allah décoration yi ak euh, maanaam ni nga orné bërëb bi ñu bëgg xam loolu loo jàng la ci daara bi wala loo étudier bu yàgg la ñu bëggoon xam daal ana noo def daal ba mën a taxaw lu mel nii. non loolu sax maanaam du lu ñuy jàng waaye li ma la wax rek maanaam taalib Sëñ waa moom pësteef la ndax lépp lu nga xamante si danga nga koo bëgg rek day mel ni sëñ bi moom moo ciy teg loxoom mosuñu ko jàng fenn mën nañ la wax ne la organisation màggal yi def yëpp fii Argentine lañ ko njëkk defee waaw fii Argentine lañ ko njëkk defee waaye nag li ma la wax rek bu fekkee dangay ngay liggéeyal sëñ bi moom boo ci ànd ak Pastef day mel ne loolu laal rek sëñ bi da ciy teg loxoom waaw waaye jànguñu ko fenn nag wax dëgg fa na yàlla. macha allah mu mel ni organiser la ñu wax te organiser day fànn yu bari mel ni organiser yombul ma felli fi ne façon doomu aadama bu ne dina fi ñëw rawatina nasaraan ci nga xamante ni da ngay féetewoo ak ñoom euh, di leen def ay organisation ndax comme que bokkuñu ñoom culture rek bu ñëwee war nañoo gis lu correct loo xam ne dana tax ñu naw ñu euh, yàlla def ñu boole ak ñoom euh, nga leen di wan mbir yi nii lay toogee nii lay toogee yow noo dund ak ñoom ci biir li nga xamante ni mooy tante bi ak maanaam màggal gi ambiance beeg noo ñoom waaw xam nga maanaam nasaraan si moom naqari wu ñoo organiser ndax ñoom macha allah yàlla dafa def ñoom dañoo correct ñoom duñ xaar nga leen laan def leen nii wala def leen def leen nii suñ ñëwee xam nañ fi ñu war a toog li ñu war a def aussi tamit xam nañ ko bu ñu xasee ba nga ñëw ba nga placé leen fi ñu war a toog li ñuy def mooy dañuy dem commandé li ñuy lekk nga andil leen ak li ñuy naan ñu jëfandikoo tranquillement su seen heure dem jotee ñu dellu ñoom na naqariwu ñoo organisé moo tax daanaka moom ñoom du ñu indi benn désordre ci wàllu organisation bi daal waaw euh, comme que instant yi rek lépp day tàbb ci biir euh, ndax yéen a ngi pare pour nasaraan si comme comme que yéen a leen a pare pour convaincre leen ci li nga xamante ni euh, ci ngeen nekk wala am na ñoo xam ne jot ngeen leen a tàbbal ci biir li nga xam ne mooy daara ji ñu mën a ànd ak ñoom liggéeyal Serigne Touba jamono jone ndax mag ñi dañuy wax naan liggéeyal Serigne Touba am na tànk kanam waaye amul tànk ginnaaw yéen a seen diggante ak nasaraan ak religion bi nu demee waaw très bonne question ndax bu ñu xoolee yow yaa ngi ci daayira bi gis nga ne jamono yi ñu génn yëpp tubaab yi ñu ngi tuub di dugg ci lislaam ñoo xam nag yan principe lañ ci duggee ndax euh, maanaam nit moom bu gisee dara ba xeemeem ko rek xëy na am na lu tax mu xeemeem ko comme yàlla def na nag maanaam ñi ngi dugg si ci biir maanaam di ñi ngi dugg si ci biir di dugg ci biir diine ji di tuub te aussi forme nañ benn daayira bu nga xam ne boron nañ benn jàngale euh, jàngukaay bu nga xam ne man mi maa ko jiite ñu di leen jàngal alxuraan am na ci ñoo xam ne ñu ngi commencé di julli mën nañoo tari saari alxuraan yi xam nañ ni ñu jullee xëy na bien vrai que comme dañuy soog a dugg mënaguñoo xam farata yi ak sunna yi mais loolu après lay ñëw waaye gis nga ne yow sag dimanche ñu ngi leen di jàngal njaa ngi leen jàngal alquran ñu ngi julli te loolu nag maanaam liggéey bu gën a rëy loolu ci lislaam amul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon Seydina Aliou ne ko yàlla gindee ci yow kenn nit moo gën àdduna ak li ci biiram kon nag bu ñu yàlla yabalee ñun ñu nekk ay jullit ñëw fii ci réew mi di jël tubaab bi di ñëw di xeemeem li ñu nekk di leen ci dugal nekk na liggéey bu nga xamante si liggéey bu am am solo la ñun ay ay ambassadeur u l'islam lañ di ambassadeur yi Serigne Touba kon fépp fu ñu nekk rek dañ faa war a nekk ay bon exemple fexe ba li ñu nekk ñu xeemeem loo ko nit ñi bañ mën a dugg si ci biir macha allah ma Matar mu mel ni mbokki taalibe yu bari dañ naa wax nasaraan ñoom bala ñoo dugg ci mbir rek danañ ko seet seetaat ko te la ci ëpp mu mel ni wàllum technologique bi dañuy dugg ci internet bi eh, di gusa di buskaar religion musulmane nu muy doxe mel ni léeg-léeg mën nañ ay fànn yu waroo comme euh, Serigne Touba mi nga xamante ni si nii maanaam dafa woote li nga xam ni mooy ñi nama jëm ci yàlla mu mel ni environnement bu mel ni ñu mën ko taxawal foo xamante ni euh, islam tumuranke woon na fa loolu ndax yow jëm yéen ak leen di jéem a expliqué kan mooy dëgg-dëgg si Ahmadou Bamba ba tax ñu bañ di réere ci yenn yi waaw maanaam loolu euh, boo gisee màggal gi bi mu ñëwee préparer nañ ay ay feuilles yu nga xamante si dañ ko traduire français dañ ko traduire espagnol pour jàngale leen ci lan mooy lislaam xamal leen ne leen l'islam nekk na religion bu nga xam ne si religion wu jàmm la parce que baatu lislaam li muy signifié mooy jàmm la paix wax leen tamit kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lan mooy mission xamal leen yonent bi mooy xaatim nabi wa imaamul mursalin moom moo mujj ci yonent yi moom mooy tamit c'est le meilleur des prophètes tamit loolu ne moom moo gën ci prophètes yi xam tubaab na xariwut a expliqué moom c'est-à-dire da koy jéem a convaincre ci li nga nekk yow parce que ñoom dañuy gëm ne yàlla ñaar la yàlla am na doom mais nga génnee lool ci seen xel li ñuy njëkk a def ku ci tuub dugg ci lislaam li ñu lay njëkk jàngal mooy dañu lay xamal ne la yàlla moom kenn la amul ndend amul doom kenn juru ko jurut kenn li ñu lay njëkk a mooy suratul ixlaas bu ñu la jàngalee fatiha ba pare lixlaas lañ lay njëkk a jàngal te loolu mooy tawhid ju mat sëkk ndax nit ki bu amee imaan balaa bu amul tawhid ak ngëmam du wér mais boo xasee dugg ci lislaam ba am iman ba ba doon julli rek li nga war a njëkk saxal ci sa xol mooy tawhid te tawhid nag mooy li ko mën a kii mooy fexe ba doo bokkaale yàlla ndax ñoom comme ay musrikoon lañ te yàlla dafa wax ci alxuraan ni inna allaha la yaxfiru an yusraka bihi wa yaxfiru maa doon saalika liman yashaa wa man yushrik billahi faqad iftara isman azim bokkaale yàlla mooy bàkkaar bi nga xamante si suñu borom du ko jéggale te comme ñoom ay musrikoon lañ ñu fexe ba dugg si ci diina ji li ñu leen njëkk jàngal mooy ñu fexe ba saxal ci ñoom tawhid ju mat sëkk xamal leen ne leen kenn la amul den loolu moom mooy liggéey bi bi nga xam ne si ku dugg si ci lislaam loolu lañ leen njëkk a fexe ba saxal ko ci sa Euh, ñu bëggoon a xam naka ngeen doxalee seen nekkin fii ci réew mi ba tax tey jii ku dugg ci biir gis na nasaraan si sànq doon leen interview euh, ñu bari lool ànd ak sant gu mat sëkk maanaam euh, donte am na ñoo xam nekkuñu ci diine gi sax mais lim bu takku ñëw na fi maanaam ana la mooy seen doxalin ba tax ngeen mën a am dajale maanaam lim bu toll noonu ci waa ay nasaraan ñoo xamante ni si ni sax diine comme nu ma ko waxee jamono ji ne rek tumuranke woon na fi ngeen a dajale ci lu mel nii. waaw maanaam nit ki fépp fu mu nekk xam nga l'islam mooy diine ji nga xamante si civilisation la nit ki fu mu nekk dafa war boo nekkee ab jullit premièrement boo nekkee ab jullit li nga war a njëkk wane mooy bon exemple bon exemple nga war a njëkk a wane foo nekk rek nit ñi dañoo war a roy ci yow di jàng ci yow mais yow waroo jàng ci kenn parce que l'islam li mu indi amul benn diine bu ko indi civilisation bi gën ci àdduna bi mooy lislaam moo tax comportement foo nekk rek da ngaa war a wane un bon exemple ñu ñuy roy ci yow moo tax ñun li tax ñu xeemeem li ñu nekk ba ñëwul fu ñu woote ñu wuy fu ñu gis tamit bëgguñu boo nekkee sénégalais sax maanaam dañ lay dañ lay bëgg parce que loolu tamit loolu mooy liñ leen wan rek loolu lañ jàpp ci ñun waaw. sëñ Matar loolu nekk lu am solo sëñ Matar buñ passé li nga xamante ni mooy euh, organisateur bi mu doon sëñ Matar en même temps dafa nekk ko xam ne wax dëgg yàlla sëñ bi da koo séddee muy waxtaan ci li nga xam ne si ni mooy jaar-jaar sëñ beeg yooyu te buñ dee màggal rek dañuy day doon lu am solo loo xamante ni day laaj détail lu bari ndax mën nga ne màggal rek mais mënoo teg rek ne màggal lii mooy màggal mu mel dafa euh, laaj yaatal ñu bëggoon a xam sëñ Matar ana lan moo waral bis bi maanaam lan mooy dëgg-dëgg yeex bi daal lañ bëggoon nga wax ñu ci ak gàttal waaw da yax bi dañ koy ci lu ci lu gàtt ndax Serigne Touba dafa indi benn bayit bu nga xamante si moom mooy màggal mooy bayit bi ma la wax léegi rumtu sukoorullaahi sil jalaali min tal sa sin bi sikri nee na màggal da koo tënk ci ñaari bayit yi rek rumtu sukoorullaahi mu ne maa ngi sant yàlla mii borom màgg gi sil jalaal mooy bii borom màgg gi mu ne min tal sa sin tal sa sin mu mooy 1921 kon 1921 la Sëñ Tuubaa njëkk a màggal bi sikri wala xalaal nag mu wax ni ñuy màggale mooy jàngal xuraan def salaatu ala nabi waxtaanee gaa yu baax yi xéewal yi nga xamante si moom la yàlla defal sëriñ bi ñu waxtaane ko wal xalaal nag mooy bernde yi loolu rek mooy màggal amul leneen benn bayit rek la amul leneen benn bayit rek la loolu loolu sëñ bi ci la tënk liy màggal gi lépp maanaam baas boobu boo gisee baatu màggal sax dafa jóge ci ci ci maanaam ci bi sikri euh, euh, baatu màggal dafa jóge ci bayit bi ndax xam nga màggal mooy tax taxsiim mooy màggal suñu borom xormaatu yàlla la ñuy màggal moo tax bayit bi dafa tënk lépp wax na li tax muy màggal ki muy màggal ak màggal gi ni koy defee loolu lépp tënk na ko ci biir mu mel ne tamit aussi tawféex da ci am ndax euh, maanaam boo gisee dafa am bayit woo xamante si sëriñ bi daf ko daf koo wax mu ne euh, mu ne euh, mu ne mu daan ne sakara nii sul aradina wa sama sukara la dal ixraari xadr sima mu ne maanaam cant gi suñ borom nangu na ko nang ba ma sante yàlla ba mu nangul yàlla ci boppam dafa wëlbatiku sank sant ma waaye yëmut ci sant ma mais cant gi daf koy yégal ci aras ak kursi yu lil si wal kursi nihmal marxa maanaam gannaaw ba mu sant yàlla ba yàlla nangul ko cant gi moom tamit suñu borom dafa wëlbatiku sant ko waaye sant gi mu ko dem tamit du yem ci sant gi waaye daf koy yëgal ci aras ak kursi yu te nee na képp koo xam si am nga ab cër ci suñu borom xam nga ne suñu borom maanaam sant na ma yëkkati na ma ba mu féete kaw ak ba kaw gaa yëpp mel ni Serigne Touba maanaam euh, li mu amoon ak euh, ñim jamono teg mel na daf day lu rafle ndax Serigne Touba da ngay dégg ci béy itam mu naan euh, simaamul waral xasri la dallaahi fi yadi mu xam leen sunu borom maanaam jël na mboolem ruum mbindeef yi teg ko ci loxoom muy martaba boo xam ni martaba kawe la sëñ Matar ñu bëggoon a xam dëgg-dëgg maanaam Serigne Touba sëñ Matar fan dëgg-dëgg Serigne Touba moom sëñ Matar mu nekk kàddu gu gàtt goo xam ne dañ koy tëjee maanaam bayit woowu sax daa am weneen wu ci tegu macha allah simaamu sabil islaami xam nga simaamul waraa la wax maanaam ruuwu mbindeef yëpp ruuwu mbindeef xam nga alwara moom alwara moom lépp euh, lépp gi ci biir waaye dafa waxaat beneen bayit mu naa simaamu sawil islaam yi maanaam mbooleem jullit yëpp tamit ruuw jullit yëpp suñ borom teg na ko ci loxoom waaw maanaam foofu la Sëriñ Tuubaa foofu la nekk maanaam tamit euh, ñu xam ne Sëriñ Tuubaa mooy lu kenn xamul maanaam lu kenn xamul gis nga cant gi dañoo dimbale ndax xam nga yàlla dafay wax ci alxuraan ne ihmaloo ala daawudu sukran wa xalilun min ibaadi sukoor maanaam euh, maanaam jaam ñi mu sañ borom dafa wax ne ba mu waxee ne yonent yàlla daawud ak ñim àndal ne leen ñu sant ñu jëf jëf li ñuy jëf mooy sant yàlla mu xamal nag ne ñi maanaam ñi ñi ëpp ci ay jaamam du ñu sant yàlla léegi bu ñu sëriñ tubaa àndalee lu mel nii te ñun sant ñu sëriñ bi mooy sant ndax dane ngeen sant le ma yàlla ndax sant yàlla moom jaamu yàlla guñ booyal la ñëpp ko war a def amul app amul espace amul temps ndax nit ki saa bu xëyee rek gis li ko li li tax mu war a sant suñu borom yaa ayyuha llazina am uskuru ni'matallahi alaykum alimin xaalin xayrullahi yarsuqukum maanaam nit ki balaa suñu borom sax di mën a nangu ak jaamam faaw muy sant yàlla balaa suñu borom mën a reconnaître yow sax jaamu yàlla yow faaw ngay sant loolu mooy sant yàlla kon bu ñu Sëriñ Tuubaa indilee bis bu mel nii dañ ci sant yàlla te moom comme jëfam suñu borom nangu ko suñ jëf day dugg ci biir jëfam macha allah kon kooku ngeen jonal mooy Serigne Matar mu indi fii leer li am euh, mooy maanaam Serigne Touba maanaam sant gii mu wootee ndax sunu borom kat sëñ la ne ne na ne li ëpp ci bu ñu defee ay cantaakun rek xër ñu ci cant rek maanaam loolu li àdduna la waroon kon bu ko defee sëñ Matar da ngay tàggatoo rek bu ko defee incha allah rabbi ñu bàyyi la nga nekkaat ci yi ku ne xam na ne mbiri xat nag lépp euh, looy tàggatoo ak ñi xam ne si ñoo lay teewlu ci Touba Argentine TV mbokki àdduna yëpp ñu lay teewlu sëñ Matar nga def sa tàggatoo waa Touba Argentine TV rek maanaam yàlla gën leen a yokk ba ñu fekk ñu fekk ñu fi ay at yu bëree bëri ñun ñëpp ñu fekk ko ci jàmm yàlla yëkkati leen bu baax a baax ndax télé bi am na solo trop ndax ku ne xam na ne lii nekk ci Argentine yëpp ñu ngi fa yabal seen i di fa yabal seen i journal pour ñu dem di couvrir bis bi te lii bu gënee yaatu ndax lii tamit lu ñuy tas la muy tasaaru ci àdduna bi kon nañ fexe ba dooleel leen ba maanaam ñu gën a yokk ba gën am jumtuwaay yu gën a yokk ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon bu ko defee rek di leen jox dig daje nes tiir rek ñu àndaate yeneen jëwrin indi leen ci ak yaatal ci kàttun yàlla ak mbaaxam kon da ngeen ñu xaarandi tuuti rek tegandi leen seen baaram foofu